والقلم وما يسطرون def rek mooy woo sëñ Jili Ñang mu ñëw présenté ñu ñenn ci gan ñi nga xam ne ñoo fi teew euh, ci tënk rek bu daaneelee ñu daal di dugal nag ki nga xam ne mooy suñu invité d'honneur di soxna Adja Binte caw mu ñëw yëkkati ay kàddoom moom itam dalale ko ganam ñi nga xamante ne tey ñoo ko fekk si ci jotaay bi nga xam ne moom lañ ko dara woo ko mu nekk invité bi nga xam ne moo ci gën a ràññeeku. julli ci bi sallallahu alayhi wa di santaat cheikhuna cheikhul xadim ñaanal fadilatu cheikh Mouhamadul Muntaxa sunu borom yàggal ko fi lool mu ànd ak wér ak mucc ak njabootu cheikhul xadim gi yépp waaye ñaanal itam. ki nga xam ni moom la yàlla jaarale liggéey bu màgg bi ci moom ci loxoom muy ji Sëriñ Seck di xaadimul xuraan tey ji ahlul xuraan gépp bégaat nanu ci jataay bi ak liggéey bu màgg bi liggéey bii nga xam ni day gën a firndeel saa su nekk jagle ak cër bi nga xam ni réewum senegal am nañ ko ci alxuraan waaye jagle gi nga xam ne nag yàlla defal na ko ci cheikhul xadim suñu yaakaar tey ak ëllëg alaaj sëriñ jërëjëf yàlla nañ ko yàgg ànd ak yéen waaye sant comité d'organisation bi yëpp ni ko ñoom sañ Mbàkke si la waxee ak sëñ Mbàkke Sourang bu ñu tuddee sëñ Alaaji Fàllu Seck dana mel na tudd sëñ Xaadim Njaay mi jiitee commission scientifique bi dana mel na tudd nañu mbooleem ñi ànd ak Alaaji sëriñ ba liggéey bi mel nii mu mel kilifa yi teew ñu santaat leen gërëm leen bu baax tàmbalee ko ci sëñ Modou Mahfous Mbacke moom soxna May Munatu bintu Cheikhul Khadim ku nekk xamoon nga diggante soxna May ak alxuraan waaye sëñ Cheikh Awa Balla itam ak alxuraan sëñ max Mahfous buñ ko tuddee dana mel na tudd nañu njabootu Cheikhul xadim gi fi nekk yëpp waaye sëñ Maam Mor Mbacke la dafa teewal sunu yaakaar di cheikh Mouhamadul Muntaxa te xam ngeen ni sëñ Muntaxa bu ko mënaloon boppam moom mooy ñëw jiite liggéey bi ndax ñore na ko noonu fonke na noonu itam liggéey bi fonke na noonu itam ñi fi daje ñëpp kon sëñ Mor sant nañu bu baax alaaji sëriñ ak ñi mu àndal liggéey bi sant nañu ci teewaay bi nga jottali ko sëriñ bi itam bu baax a baax sëñ Abibu mi jiite Touba ca kanam ñaari doomam la yabal xam ngeen ne dafa daan ànd ak ñun jataay bi fii ay ngànt moo tere mu ñëw sëñ Fallou ñëw na sëñ naa ñëw na ànd ak ñu ànd ak sëñ Ousseynou Niang nga xam ni foo gis sëñ Abibou ñaare gis ko ki nga xam ni it mooy sëñ Abdou Samad mu sëñ bu moom it yebal na fi délégation waaw jigéenam itam soxna maam Marème moom it ku nekk xam digganteem ak alxuraan moom it yebal na doomam sëñ Saaliw mu ñëw Cheikh Mohamad Bachir moom Cheikh Abdoul Khadir dafa bëggoon ñëwal boppam mu woo sëñ Modou Mbacke si mii nga xam ni fu mu teew daañu xam ni yoonu murit a teew sëñ Modou si mu sëñ si bu sëñ Malick Bassine si moom nag dama naan sëñ Mbacke ñëwam benn sànni la bu bu jam ñaar ndax ndax ndax kii ñu tuddee moom mënoon na ko teewal moom kese bu teewoon dana doy sëkk kon bu wëlbudikoo teewal Cheikh Mouhamed Bachir ni doomam sëñ Bas mu mobiliser taalibe yi fii ci Ndakaaru ñu àndandoog mobilisation bi jóge tuubaa te Cheikh Ibrahima Sy jiite ko moom it di jàmbaar ñoom ñaar ñu jiite njabootu sëñ Maxtaar wala sëñ Modou Xari mi nga xam ni moom la ñu tuddee xew-xew bi kon sëñ Modou ñaari teewaay yooyu la am teewal Cheikh Modou Bachir teewal noonu euh, sëñ Abdou Samad ba tey ci teewaayam sëñ Maxtaar Kébé ci délégation la bokk sëñ Basiir Bousso kazalika naka noonu waa daayira mu xadamatul xidma ñoom it teew fi teewaay bu am solo ki jiite délégation yi mooy sëñ Abdou Khadir Mbacke délégation Ngaye Mexe euh, sëñ Abdou Samad Mbacke moom ñëw euh, sëñ Mbacke Anta. bu daaru salaam sëñ Mbacke Anta bu gaawaan sëñ Mbacke Anta mi nga xam ni eh, sëñ Mbacke imaam ñëpp a ngi koy bége ndax xutba yu am solo yi muy def ànd ak sëñ Galas Lakaram ñoom it ñëw nañu teewal njabootu eh, daaru salaam gépp njabootu maam Cheikh ak njabootu sëñ Afe gépp imaam sëñ Fadilou taal dégg ngeen kàddu yu am solo yi nga xam ne def na ko ak sëñ Alioune sàll ñu ngi ñaan sunu borom yàggal leen yokk leen te musal leen ñu yàgg ànd ak ñun liggéey bi. docteur sëñ Xaadim Silla mu diir moom it ñu ngi koy ziar teewaayam ni mu ko baaxoo defee saa su nekk di sag ci yoon wi waaye di sagu diine ji yëpp oustaz Cheikh Thioub moom it teew na teewal association imam ak ulama yi nekk ci réew mi yëpp ñu ngi koy sant bu baax sëñ Mayacine Seck ak délégation bi mu àndal sëñ Mahmoudan Seck kazalika naka noonu ñoom it ak délégation bi ñu àndal délégation Ndiassane muy délégation bu am solo euh, sëñ Thierno Kunta euh, jiite ko ànd ak euh, sëñ Sidi Makhtar Kunta professeur Birane Ba ak ki nga xam ni mooy oustaz bu Mohamed Kunta sëñ Thierno Lo indil nan ma ko léegi moom it teew na waa daaray bayti sekk am na ci ndongo lu fi jàng léegi yoo xam ni moo ubbi liggéey bi fa la jógee sëñ Modou Guèye mooy jiite délégation bi waa Beyti Seck itam ci boppam dëkk ba ki nga xam ni mooy sëñ Mamor Seck moom moo jiite délégation bi waa Beyti Diop euh, sëñ Mati Diop ak sëñ Ndiaga Diop ñoom ñoo jiite délégation ba fa sëñ Mortala Dieng ñaaxeen moom euh, jiite délégation Daara ñaaxeen euh, sëñ Baye Dieng moom it di sëñ Daara moom it ñëw teewaay bu am solo sëñ Mbàkke dama xamul ñii jàmbaar yi nga xam ni. dañoo teew waaye yamuñu ci teew ndeysaan imaam sëñ moo Guèye liggéeyal alxuraan lu bare bare liggéey ci daara lu bare bare rawaate na fii sëñ Modou Guèye mooy dugg si noonu dafa am ñoo xam ni dañoo ñëw waaye ñëw itam ànd ak bàyyi sëriñ ak kuréel gi ci liggéey bi muy jàmbaar yoo xam ni yamuñu ci teew rek waaye dañ cee boole nag ni nag lii nañ leen ko defal ci liggéey bi ñooñu ñi ca jiitu mooy xaadimul xuraan alaaji Ablaye Dia seni ko ak doomu ndeyam sëriñ Moustapha Ndiaye ñi leen teewal mën nañ ci tudd sëriñ Talla mi coordonné concours seniko bi ak sëñ Ousseynou Gueye mi nga xam ni moom moo yor commission bi yor wàllu yaatal liggéey boobu di directeur commercial itam bu seniko sëñ Ablaye xam nga ni mook alaaji sëriñ daanaka ay seexlan ci liggéey bi liggéey bi ñoo ko ànd ni ñuy àndee concours restal Sénico bi kon ñooñu bu leen tuddee tudd sëñ Cheikh Amar moom mu teew teew indi itam barkeeloom ci liggéey bi kazalika naka noonu sëñ Balla Seck commerçant sëñ Basirou Silla euh, ak ki nga xam ni mooy sëñ Mortala Sall sëñ Mortala Mortala Sall sëñ Sumbul Silla Chine moom it sëñ Kabou Guèye sëñ daan Silla commerçant Ale Seck sëñ Ale Seck commerçant sëñ Sam Diaw sëñ Abdoulaye waa tudd naa ko léegi sëñ Abdou Xuma sëñ Xaadim Silla sëñ Cheikh Seck sëñ Abdou Latif Seck sëñ Mori Xuma sëñ Maxtaar Kare Bois sëñ Maxtaar Kare sëñ Modi Silla Bois ñooñ ñëpp di ñoo xam ni ñëw nañu teew waaye indaale fi itam Euh, addiya goo xam ni dañ ne bàyyi sëriñ na leen ko dugalal ci biir liggéey bi kon sëñ Mbacke da nga ni ma euh, téye tuuti dellu siwaat ndax délégation officielle bi ñi ngi fi euh, président ñi teewal président ak ñi teewal ministre de l' éducation nationale ñoo ñëpp bu ñu dellu siwaatee boo ñëwaatee boo ñëwaatee asalaamaaleykum wa boo ñëwaatee incha allah waaleykum salaam jërëjëf sëñ Jili jërëjëf kilifa yooyu nga lim yëpp ñoo ngi leen di dalal أنت بنعمة ربك بمجنون